ñaari fan ci wéru avril ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat wu examen yi xamante mom la lendi, di jox légui ci témèr ak ñaar fukki ak ñaar ñett ak ñaar ñaari test juróom ñoo ci positif juróom yi ñaari cas important ka contact la yu ñu doon ma leen di yëgal itam ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout à l'heure ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu xaymee tey ba ñu ak léegi am nañ téeméer ak juróom ñeent fukk juróomi cas fii ci Sénégal juróom fukk yi ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape bi fi suñu boroom jële ak benn cas bu ñu évalué bu évacué may yëgal ne fi mu nekk nii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk hôpital di Le ministère de la santé et de l'action sociale mingi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consigne li jox pour que xex bi ak coronavirus bi ñu mën gagner